alaaji daam silla mi ngi feeñ jamono ci atum 1943 ci dëkk bu ñuy wax daaru marnaan daaru marnaan sëriñ cheikh awa balla mbàkke moom maam cheikh ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko gor ci dëkk boobu nag la alaaji daam silla feeñe jamono ci atum 1943 di doomi soxna maam soxna silla ak elaaji taala silla ñaari jëmm yooyu nag ñoo meññe elaaji daam silla mii laataa ñuy xuus sax ci mbirum alaaji daam silla ñu nag njaboot gii ko meññi nag fan lañ cosaanoo alaaji taala silla mi ko meññi doomi soxna mareem xay silla la Mariam Xay Silla doomi sëriñ Libaas Silla la bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram El Hadji Taala Silla moo ko jàngal alxuraanul karim ak maamam ji meññi wu góor di sëriñ maam Sumbulu Silla moom ëtt bi mu feeñee ëttub alxuraanul karim la moo tax itam nag ci ëttub maamam ak waajuram nag la jànge alxuraanul karima ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim nag ci ëttub Libaas bi la tàmbalee yaxantu nag ci ron waajuram daaru marnaan googu mu feeñee jamono la bàyyi ko nag fas yéene yaxantu dëkk bu soriwul dara daaru marnaan nag la maxa ci atum 1965 ba ci atum ñetti at nag la def ci maxa di jaay njaayum ambulant xeetu tàngal yi nag la doon jaay ca jamono jooju 1968 la jóge nag ci dëkk boobu nag di cil maxa dem nag ci dëkkub taax nag bi ñu tudde ndakaaru marchand ambulant ba tey nag la fa doon def di wëreelu nag ci mbedd ndakaaru yi fas yéenee dundal waajuram dëkk ba mu ko bàyyi nag di daaru mar naana ndakaaru googu nag la nekk nag ci atum ba ci atum mu dellusiwaat nag ci dëkk bi mu cosaanoo nag di daaru marnaan ubbi fa nag ab bitik tàmbalee yaxantu nag ci dëkk boobu di dimbali waale waajuram itim ca tool ya ak kër ga suñ boroom nag tàmbali koo ubbil ay xéewal ba tax na nag askan wi mu bokk nag muy silla ñépp naw nañ ko mu nekk itim nag ku ñu yar ku bëgg lislaam waaye ku bëgg itim nag njabootug maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru rawatina nag sëriñ Cheikh Awa Balla ak njaboot gi fi sëriñ Cheikh Awa Balla bàyyi muy maam Ceerno moom daaru marnaan bitik léegi moo xam Gambie Burkina Faso Mali yaxantu ba tey nag ci wàllu commerce di baana baana nag la fa doon def ginnaaw bu mu jógee nag ci réewu Afrique yooyu la dellusiwaat nag ci dëkk bi mu cosaanoo nag di daaru marnaan la delluwaat Gambie nag dugg nag ci njaayum tissu tissu yooyu mu doon jëlee Gambie nag bu ko indee nag ci réew mi ci dëkk bii nag di Ndar Géej Ndakaaru ba ci Lugaloo nag la ko doon jaaye ji ci atum 1978 nag la dem Màkkatal Mukarrama bi m dem Màkkatal Mukarrama mook Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mi nekkoon xalifa Xaadim Rasul nag ñoo àndoon mu nag des nag ci njaay moomu mu nekkee woon muy njaayum tissu yi mu koy jëlee nag Banjul di ko indi nag ci réew mi di ko yóbbu itam nag ci dëkk bii di Ndar Ndakaaru ak Louga loo ba ci atum 1990 mu ubbi nag a place nag ci dëkk boobu nag di Ndakaaru tàmbalee voyager nag ci réewu Europe yi wala tàmbalee voyager nag ci réewu Asie yi ci dëkk bu ñuy wax Hong Kong ci Siin nag la daa dem di fa jëlee nag ay tissu yi di ko indi nag ci place bi mu am nag ci Ndakaaru ci atum 2001 jàpp 2002 la dugg nag ci wàllu njaayum essence lëkkaloog nag kër kër gi nag di total station bi nekk nag ci yoonu Mbàkke di total kër xaadim nag la njëkk a ubbi ci atum 2002 ci atum 2004 mu ubbi nag ñaareelu station ba tey nag lëkkaloo kër gi nag di total ci rutu daaru moxti bi ci ñaari station yooyu ak magasin bi mu amoon nag ci ndakaaru di jaywaalu tissu ci la daa jëlee nag wërsëgam ba ci atum 2006 nag mu génn àdduna ci benn clinique nag bu nekk ndakaaru ñu koy wax clinique jamono léppam nag nekk fa di daaru marnaan mu nekk nag ku bëgg sëriñ tuuba ku bëgg itam njabootuk maam ceerno gi mbooleem doom yim am bu dul kim ci tudde seydina muhammad di ab ak kim tudde waajuram di alaaji taala si la ñépp njabootuk sëriñ tuuba seexul xaddiim gi la leen tudde ku sëriñ tuuba ñor la yoroon na doomu sëriñ cheikh mbakke gaynde fatma bu ñuy wax soxna maymunatu mbàkke yoroon na doomu maam ceerno moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke di sëriñam ku ñuy wax soxna aminta mbàkke ak soxna sim njëkk dëkkool nag di soxna gaas jaxate ak soxna binto ko ñeenti soxna yi nag la dëkkoo woon daana wax ak njabootam nag farata yàggul saa bu farata jotee def leen ko daana xamal ak njabootam itim def lu baax itim nag du doy te lu ngeen ciy def itim na ngeen ko def nag ci sutura daana xamal ak njabootam itim tàmbalib liggéey itim nag du tuuti loo am bu ci suñ boroom defee barke mu man laa jariñ mu nekk nag koo xam ne nii aw turam ak jëmmam nag wute nañ foo dégg alaaji daan silla ba gis jëmm ji daa xam ne tur yi ak jëmm ji nag bokkuñu ndax tur yi siiw ak xam àdduna nag moo ca nekk mu nekk nag koo xam ne nii nag ay mbokkam itam nag nawoon nañ ko fépp mbokkam bu masaa jaaxle ci àdduna muy jafe-jafe wala ci xel ak nga ñëw ci moom nag sooy dellu dana faju ndimbal ak dimbalee nag jëmu yar ay njabootam moo xam doomi góor yi ak doomi jigéen yi ñëpp itim nag moom la ñu yore noonu mu daa yaree nag ak njabootam soxnaam si nag di soxna binta ndongo moom itam noonu la daa ñaaxe itam ay doomam leen wax ne ni ngeen sàmm nag seen alali baay yi sàmm seen alali baay mooy seenub mooy tax itam nag naw leen nag ngeen mën a am ngërëmam mboolem doomi soxna binta ndongo yi sant nañ seen waajur alaaji daam silla ne ginnaaw buñ màggee nag loolu mooy dëgg gi sante nag seen waajur wu góor woow ak seen waajur yu jigéen yooyu ni lañ sante nag seen rakku waajur wu góor wi di sëriñ sumbul bu ñu noppee seen waajur alaaji daam silla seen rakku waajur wii nag sàmm na leen aar leen fépp foo xam ne ni itam nag seen waajur féete woon na leen fa moom itam nag ma nga leen fa féetee doom la leen jàppee njaboot gépp itam ñoom nag maase nañ sant seen rakku waajur wii nag di sëriñ sumbul silla magam nag alaaji daam silla nag mi ngi génn àdduna bisub àllarba 14 juin ci atum 2006 ci clinique bi mu tëddoon nag ci ndakaaru di clinique nag mamel ci clinique boobu nag la génnee àdduna ci ndakaaru ñu jëlee ko ndakaaru nag indi ko nag fam yaakaaroon fam feeñe woon jamono nag fekkoon fa baaxa di daaru marnaanu sëriñ cheikh awa balla mbàkke foofu itam nag lañ ko denc na ko ko àjjana te fay ko nag jëfam te wanale ko nag ki mu Cheikh Awa Balla Mbacke te suñ borom nag teg loxo nag njaboot gi mu fi bàyyi te may leen sutura ak barke nag